di euh, dem ci baar bi Sidi Ahmed Mbaye euh, donc euh, voilà moom la ñuy déglu question yi. Hmm? ñoom fàtte sonal na leen de moom nee na trois fois yi mu dem sud ba te premier bi daf ko fàtte. moom daf ko fàtte. waaw na fàtte na premier bi deuxième bi moo ko doon visité loo sud ba te kat aji euh, moom Sidi nee na aji moo ko doon visité loo Sweet Beauté. Hmm. troisième bi bi mu koy jël si ginnaaw bi mu ko confié ne ko dafa am ku koy violé. ñetti yoon yooyu daf mos a dem. waaw nee na moom ñetti yoon yooyu. daal première fois bi daf ko fàtte. daf ko fàtte mais nan la fa demee lu mu fa demee. non waxul nu mu fa demee daf ko fàtte. nee hmm. na deuxième fois. mën na fàtte kañ la fa demoon mais lan moo ko fa yóbbu. lan moo ko hmm. ah, duggul ci lan moo ko fa yóbbu woon. Hmm. bi nee na dafa doon dem ngir visiter. Euh, Sweet Beauté aji moo ko ko doon visiter. léegi nag troisième fois bi bi mu demee jëlee aji. waaw moom la mu wax la mu wax mooy que ne aji sax dafa ñu confié wu ci moom dafa dafa am koo xam ne si nii eh, daf may euh, daf may violé daf may tëdd. voilà le a si di mës nga. Euh, dem Sweet Beauté euh, donc trois fois mooy li nga wax léegi nii muy ñett yoon yi nga xamante ni euh, donc ca la dem foofu la ca ca la dem foofu ci Sweet Beauté ñett yi ñaar yi la fàttaliku ñaar yi benn bi ci des mooy bu njëkk bi moom fàttalikuwul ana kañ la demoon ci foofu nga xamante ni moom moo di Sweet Beauté Euh, ba léegi ñu ngi ci kon euh, Sidi Ahmed mbay moo nekk ci baar bi mais moom dafa mel ni ay mbirum dafa yeex nag. Mhm. ndax gars yi nit ñuy balancer les infos dafa mel ni Sidi. docteur moo ko gënoon a docteur moo ko gënoon a gaaw docteur ci début bi tamit noonu la meloon ah. mais affaire plus ngay dem rek. waaw waaw yaram yaram yi di tàng donc plus ñuy dem rek waaye ñun aussi plus ñuy dem yaram yi di gën a tàng. Mhm. voilà donc Sidi confirmé na li nga xam ne moom la Aïssata Ba wax appel bi euh, aji def ne ko daanu na mhm. kaay jël si ma donc nee na euh, aji daf ko waxoon ne ko dafa am ku koy violé di ko violé ay viol yoo xam ne c'est répété mais bëgg na ko porter plainte mais amul benn preuve nee na mu ne ko léegi da ngay fexe nga ut ay preuve boo utee preuve ba pare mhm. nga doog dem porter ko plainte nee na donc looloo waral aji woo ko ne ko kaay nga jël si ma am naa preuve léegi jaarul carrément ci euh, le fait que mu woo ko ne ko kaay daanu na mais on sous-entend ça parce que Aïssata Aïssata waxoon na ko sànq ni que bi mu paree am na ko mu woo ne ko kaay jël si ma daanu na donc euh, di daanaka loolu la confirmé mm-hmm. parce que moom moo fa dem secourir ko ànd ak moom euh, yóbbu ko ñu xool ko mm-hmm. loolu la confirmé mm-hmm. donc muy preuve yi nga xamante ni Adji Sarr bëggoon na ko am laata muy dem di porter plainte moom moo ko conseillé mu wut ay preuve sax donc comme ni nga ko waxee ci la ko woowee moom Adji Sarr bi mu amee preuve yi Eh, muy eh, loolu nga xamante ni moom moo di sperme bi ñu doon wax mooy que ni eh, maman ba ni mu ko waxee mooy que ni saa Sarr dafa woote ki mu doon waxal téléphone bi mu ngi naan ko daanu na ñëwal gaaw. donc mhm. loolu mën nañ jàpp ne Sidi Ahmed Mbaye. confirmé daal dina koy confirmer dëggal na li nga xamante ni loolu la loolu la wax. donc Sidi Ahmed Mbaye est-ce que vous connaissez euh, Ndeye Khady Ndiaye mu tontu ko ne mu mu tontu euh, par la négative mu ne. xamu ko xamu noonu nee xamul bi ñu ko laajee ndax xam nga aji Ndeye Khady Ndiaye dañu xamu ko euh, donc euh, par contre mu souligner que avoir connu Adji Sarr depuis 2018. moom xam na Adji Sarr xamante nañ ñoom ñaar depuis 2018 euh, j'ai fréquenté Sweet Beauté trois trois fois donc moom ñett yoon rek la daal di def man la ma la ma sa dem fi nga xamante ni moom moo di Sweet Beauté le juge di au procureur boobu mooy que li ñu wax léegi voilà. donc Sidi Ahmed Mbaye mais contre ko wax parce que docteur dafa xamle sànq si ay déclaration am ni moom moo dem jëli siidi Ahmed ak aji Sarr euh, ci ci boppu koñ bi. Mm-hmm. mais yeggul Sweet Beauté. Mm-hmm. Euh, Sidi dafa xam le ne docteur moo ko jël si seen kër moom. moom sii di seen kër la ko docteur jëlee ñu ànd dem jëli Adji Sarr donc ñaari wax yoo xam ne la bokkul. Mm-hmm. nee na moom docteur moo ko jëli moom ci koñ bi la ko fekk la ci koñ bopp koñ bi la ko fekk. koñ bi la ko fekk moom aji. non dañ ñoo ànd ñëw Sidi Ahmed moo ko jël si ñu ànd dem ci ci bopp koñ bi docteur wax na ne mox mox Sidi ñoo ànd dem ci dem ci salon mais Sidi nee na docteur si boppam moo ko jël si moom au lieu moom mu jëli docteur docteur moo ko jël si seen kër ñu ànd dem euh, Sidi génnee aji ñu ànd. docteur nu mu ko docteur nu mu ko mën a jëlee te ñoom ñoo woo docteur ne ko wax eh je sais pas loolu mën a nekkee. nee na moom docteur parce que ñoom ñoo woo docteur ne ko dañu am euh, femme euh, femme boo xam ne dafa nekk Sidi Ahmed Mbaye ah. mënu woon a génn këram euh, peut-être il fallait il a fallu docteur Alfousseyni Gaye dem jëli ko pour ñu dem pour ñu ànd aussi docteur dem na ba Sweet Beauté ñoom Sweet Beauté lañ jëlee Adji Sarr ah, mais duggul ci biir quoi ah mais docteur dafa ne moom demul Sweet Beauté séenul sax Sweet Beauté non docteur ne mais Sidi nee na Sweet Beauté la ñu jëlee Adji Sarr dafa génn dem moom moo génn dem donc bu ñu ko jël si woon foofu ñu fa nekk noom dañ ne dañu fee dugg ñëw jël si Adji ànd ak moom dem hmm. mais Adji moo génn dem pour est-ce que fekku ci angle baak yooyu ah yàlla xam ak ñoom ñuy wax Sidi Ahmed Sidi Ahmed Sidi Ahmed mi ngi euh, mi ngi mi ngi contredire euh, li nga xamante ni docteur Alfousseynou Gaye wax na ko mais pendant l'appel il m'a dit Adji m'a dit euh, que le gars est venu l'a violé et blessé. Mm-hmm. donc blessé boobu muy wax noonu sax Alfousseynou ah, Gaye weddi na ko na ko nee na gisul dara ñu doon blessé on l'a récupéré à suite beauté docteur Gaye et moi. donc ñoom ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko récupéré donc comme ni ko waxee moom ak euh, Alfousseynou Gaye ñoom ñoo récupéré Adji Sarr fa li nga xamante ni moom moo di Sweet Beauty waaw. nee na aussi euh, gëmul woon aji moom Seydi nee na gëmul woon aji parce que xalaatul woon ni aussi Ousmane Sonko mën na def lu mel noonu. Mhm. Sidi moo ko wax. gëmu ko wax loolu la wax ne j'ai euh, pas cru je au propos d'Adji saar car je je me disais que Sonko ne ferait pas pareille chose. Mhm. Sonko nee na jàppoon ne moom Sonko euh, ñemewul def loolu. Mhm. d'accord J'ai appelé euh, Maître Gabisso et mm -hmm. c'est mhm. lui qui m'a mis en rapport avec euh, le docteur Alfousey ah, Nougay. Et, et c'est euh, à la suite qu'on est parti récupérer Adissar euh, au niveau euh, di salon. Donc Sidi Ahmed Mbaye nee na moom moo woo Maître Gabisso et Maître Gabisso moo ko mettre en rapport avec Alfousey Nougay ñu daal di dem après ñoom ñaar daal di jëli ji ki nga xamante ni moom moo di Adissar foofu ca suite ba tey ki nga xamante ni moom moo di Sidi Ahmed Mbaye moom moo wax li nu nu mel. voilà. mu ngoog yéen ko déggandoo kon mu mel ni euh, Sidi Ahmed euh, loolu la loolu la jot a waxagum ñu xaarandi question réponse yi xëy na dina dina dina am plus de détails. Mm-hmm. donc plus de détails en tout cas bu leen euh, quitté toog ñu dundandoo li nga xamante ni moom moo di procès bi en direct. Euh, fii ci sunugal 24 point net donc ngeen mën a euh, donc euh, ngeen abonné activer cloche notification bi waaye tamit di commenter def ci am solo bu baax a baax ne tax ñi nga xamante ni ñoom ñoo jotul ci direct bi mën ci jot rawatina ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk bitim réew te bëgg a xam li nga xamante ni moom moo xew ci mbirum procès Ousmane Sonko ak Adji ñu koy àtte tey jii ci talaate ji yemoo ak 23 mai 2023 fële ca chambre criminelle ba ci suba ba léegi nag ña nga fa fa euh, ci àtte bi donte coow li bari woon na ci suba ci mbirum renvoi ki mel noonu mais juge bi dafa retenir dossier bi ne dañ ko àtte tey tey euh, même bu ñu xamee que Ousmane Sonko ñëwul ses avocats ont boudé euh, ceux de Ndeye Khady Ndiaye aussi dañu boudé yu Adji Sarr donc ñu Adji Sarr kese ñoom ñoo fa des muy les trois avocats d'Adji Sarr muy maître El Hadj Diouf maître Abou Dialikane ak ki ci des donc ma fàtte turam donc ñett ñooñu rek ñoom ñoo fa nekk te Adji Sarr Sidi nee na ak oto docteur Guèye la ñu demee Sweet Beauté jëlee ji Adji Sarr. jëlee moo taal oto moo dawal otoom Sweet Beauté jëlee Adji Sarr moom ak euh, Alfousseynou Guèye. Mhm. waaw moom la ñu woo ko am na koo xamante ne fii dafa nekk ci situation boo xamante ne vraiment mhm. mm, bëggoon nañ ko ñëw kii ko. Mhm. xoolal ñu ko. donc euh, loolu information boobu amoon nañu ko ah. parce que euh, doon nañu ko wax fa temps yële que ni docteur Alpha Seydou Gueye moom moo ko jëli euh, voilà. si la woo avocat bi pour mu pour plainte bi donc aussi di moom mooy wax juge bi ne ko déggoo ko avant pour teg preuve contre nit ni ko aji waxee. Mhm. na ko waxe na ko nit ni ko déedéet. envoyé bu ma message nee na envoyé wul message. donc euh, si la woowee si la woo avocat bi pour plainte bi juge bi nag ne ko déggoo ko avant pour teg preuve contre ni ko Adji Sarr na ko wax ni ko déedéet donc j'ai pas compris li nga xam ne si moom bind c'est en wolof la ko bindee mhm. donc na xar moo xam moo def ko en français comme ça mu gën a leer parce que fois dafay compliqué euh, trop euh, ak mhm. la wolof soo ko bindee rek dafa daf ko daf ko expliqué laat rek li mu waxoon ci commencement ay waxam que aji moo ko wax ne ko dafa am ko koy violé mu ne ko nañu wut preuve ba pare balaa ñu mën a porter plainte mm-hmm. donc looloo waral euh, ñu def seen ay pexe ñoom tamit ba am li nga xam ne mooy preuve mm-hmm. donc euh, ñoom daal dañu jàpp ne Euh, preuve la ñu si bis boobu daal. ñoom boobu loolu lañ ko jàppee donc bés boobu est-ce que réellement y a viol y peut-être euh, su fekkee viol am na yàlla rek moo xam mais est-ce que bés boobu mhm. loolu rek moo leen taxoon jóg. est nga planifier dara. dara moom laay wax nii loolu laay wax nii est-ce que réellement. te dul bés boobu. Mhm. yeneen yi mu ne dañ ko violer ndax indi na preuve. ndax indi na preuve ndax indi preuve yi ne viol am na kenn ku ñu dugg wala ñu génn voilà laa dinañ comprendre mais tamit c'est pour man je trouve un peu nga toog ne date sangam le 2 le 3 le 9 le 5 le 15 le kii nanga bon euh, sans indi ay preuves yoo xam ne comme ni ñu ko ko doon laajee sànq mm-hmm. tamit euh, ça paraît un peu léegi juge bi tamit bi mu ko laajee loolu aji wax ci téléphone bi dañu ko ndax waxu ndax waxu la éjaculation mu ne ko xakay ah, si si woo si euh, la ma woowee si euh, la woowee euh, maître Gabisu mm-hmm. bi mu ko waxee loolu moom ci la woowee maître Gabisu donc ñoom bi ñu amee seen ay preuve ci lañu ñu commencé daal di actionné pour dem def plainte bi def li nga xamante ni moom moo di rapport médical bi mm-hmm. dafa mel ni capitaine Touré la ñu woo bi laaj na ko procureur laaj na Sidi aussi ndax résultat Euh, yi nga xam ne moom lañ ko xoolee bi ñu ko xoolee ba pare kan la ko jox moom Sidi la ko jox wala Sidi ne ko non non joxuma ko gendarmerie la ko jox donc dafa mel ni woon nañu capitaine Omar Touré. si laataa ñu si Seydina Omar laataa ñu. nga def nga def bi. <laughs> laataa ñu woo capitaine Touré ñu def. Euh, rappel le li nga xamante ni moom moo la euh, Sidi Ahmed Mbaye wax Sidi Ahmed Mbaye ci fàttali moom xaritu Adji Sarr la comme ni mu ko hmm. rappelé juge bi nga xam ne ko depuis deux mille dix mas na teg tànk xam ñetti yoon fële ca chute bu te ñaar yi rek la rappelé wu li ci des bi ci des fàttaliwu ko moom nee na daf ko confié naka daka am ko xam si daf koy violé bi mu ko waxee na ko aje na ko Ousmane Sonko la gëm ko woon parce que moom jàppoon euh, def mel ko waxee nag ci la noo ne euh, ci la amee ay ni moom la doon waxtaan sànq te maman ba waxoon ko euh, que ni di bi mu ko def bi nekk ko am na li nga xamante ni moom lañ doon euh, wër mu ne ko daanu na euh, noonee ci la daal di euh, woowee ki nga xamante ni moom moo di maître Gabisso maître Gabisso mettre ko en rapport avec ki nga xamante moom moo di docteur Alfousseynou Gaye docteur Alfousseynou Gaye bu ñu sukkandikoo ci li ci li ko fekk këram que la ñu nekkoon daal di ko yóbbu fële ca suite ba te ñu daal di récupérer ki nga xamante ni moom moo di Adji Sarr yóbbu ko foofu ci hôpital bu Grand Yoff fi nga xamante ni foofu la docteur Alfousseynou Gaye di liggéeyee ci la ko ko di seete moom nag euh, jàpp na ni euh, loolee loolu rek la xam ci mbir mi donc keneen koo xam ne si ni ñu ngi koy euh, xaarandi mu war a dem ci fii ci ci ci baar bi mooy capitaine. Touré Seydina Omar Touré à la barre. Mm, nee na effectivement moom moo mënee li nga xam ne moom mooy enquête bi moom ak beneen capitaine ñoom ñoo doon mënee enquête bi mm-hmm. te pendant les auditions tamit dafa doon nekk ci biir salle bi ñu ko doon defee.